asalaamaaleykum mbokki internet Baol TV pot bu rafet mu ngi leen di nuyu di te ziar tey nañu dalal ndaanaan champion muy Jëf Jël Jëf Jël war leeral li nga xamante ne mooy li fi xew ci coowal Modou ibaadu la du ibaadu ñu bàyyi ko rek mu leeral am ay kàddu yoo xamante ne da ko ci sànni Jëf Jël maa ngi lay nuyu di lay ziar. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani laa xawla wala xawata illaa billahi al-aliyyil azim laa xawla wala xawata illaa billahi al-aliyyil azim jërëjëfati sëriñ saaliw jërëjëfaat sëriñ saaliw jërëjëfati sëriñ saaliw euh, dafa am benn éclaircissement bu ndaw rek bu ni jéem a def si suñu diggante ak suñu dëkkandoo boobu suñu nawle boobu suñu mag jooju suñu mbokk moomu muy mooduloo Euh, Modou yal na yàlla defal jàmm tawféex sutura ak xéewal barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jëf ñu gis na coow li bëri diggante Modou Lo ak Ibaadu Ibaadu la du ci colin bi la wala mais yow tey boo ma doon jàngatal ak ñi nga gisee mbir bi lan nga may wax ci say biir wax dégg naa nga ne Modou sa grand la man nag dama bokkul si ma riirandoo yi man dama di tuut tànk boo xamante si nii ku la yàgg topp laa <clears throat> la yàgg topp euh, dinaa la jox benn anecdote rek nga xam ne yàgg naa la topp muy laasana bi ngay bëre ak moom si école bi te mu daan la euh, booy bi nga xam ni moo dawoon dóor laasana si digg géew bi jëf jël mii la boobu nag tuut tànk laa Uh, boo ko laajee métérise dina la ko wax soo ko laajee am um, taala gaynde dina la ko wax uh, soo ko laajee yi dina la ko wax man duma ni yaakaar naa wala def naa wala dégg naa mais moodu bi ngay soog a tàmbalee bëre yaa ngi doon bàkkoo maam bamba yaa ñuy moom suñuy dund ak suñuy dee lépp yaa ñuy moom maam yaa ñuy moom ok ñu jóge foofu noonu nga bëre si lu mat ay huit combat nga jékki-jékki benn bis ni bu ma kenn bàkkale ti Maam Bamba yaa ñuy moom de leen ma bàkkale Ababacar Ababacar mbay Modou Lo bi saa borom dogalee loolu mu seyaasin ànd si ak yow taala Gaynde mi ngi may dégg Randout mu ngi fi yàlla na gudd fan lool keroog moo xaaju ni la kenn du def loolu liñ la doon bàkkee moom lañ lay bàkkee ba léegi ba ngeen xawan see jàppante kon nangul nañ la ko parce que innamal mu'minina ixwatun jullit jullitay mbokkam mais danga dem dugg ci benn korono boo xamante si ni bëgguñu suñuy kilifa mag ñooñu ngay gis ñu koy ŋàññe mag ñooñu ñoo defar Sénégal mag ñooñu ñoo leen jàngal ñoom ba ñu dem si naar yi dem ñu jox leen ay financement ñu ñëw bëgg emmerder nit ñi Sow te dinaa la xamal benn affaire barki Serigne Saliou mi ma yaakaar barki Serigne Babacar si mi nga yaakaaroon barki Serigne Babacar si mi nga yaakaaroon barki Serigne Babacar si mi nga yaakaaroon bis boo duggee si lobby boobu noonu ñi lay ñiy dem di defi ji lu ñaaw si li sa papa gëmoon ñii si lañ bokk parce que mooy ñiy takk bomb yi di dugg si jàkka yi ak jumaa yi mooy ñiy takk bomb yi di dugg supermarché yi ak marché yi mooy ñi nga xam ne fépp fu mbooloom jullit nekk dinañ jéem a takk bomb pour dugg fa. Moodu Ibaadu la du Ibaadu lan la wax ndax Moodu ku ko xam-xam ne taal bi Serigne Babacar Sy la ci say biir wax ñu ngi dégg nga ne bi muy soog a départ euh, la doon bàkkoo bu ñuy dund ak bu ñuy dee yaa ñuy moom je pense que lépp benn lépp ci diini ji la lan lañu mën a wax ci diggante Modou Lo ak Iba Douye li nga xamante moo lëmb réew mi daal ci phase boobu lan lañu si mën a wax muy Sidi Alhaji Malick Serigne Touba am Baye Niass Limaamu Cheikh Bou Kounta Ndiassane vareeva vareeva ñoon ñoon li tax diine ji rafet mooy si benn ngir lañu wékku di ko di ko di ko di ko di ko di si sant suñu boroom ñii na nga xamante si ni moom musiba rek moo leen tax a jóg nga ñëw ni danga leen di faaloo danga leen di jox doole danga leen di jox kàttan mënoo leen a jox kàttan munoo leen a jox doole mënoo leen a jox dara xam nga lan nga si jëlee der bu ñaaw ak wax ju ñaaw bàyyi faal bi nag daf la respecté du la mas a dépassé mais dinaa wax sama contribution si mbir mi. ñooñu duñ ñu baax si Sénégal ma wax la ko tey nga dégg ko ñooñu duñ baaxuñu tey baaxuñu ëllëg man jàppewuma leen ay jullit parce que képp ku yee fitna ku ne doo jullit. te ñooñu fitna moo leen tax a jóg fitna moo leen tax a jóg te nag bëgg naa nga jéem a dem wuti ji alluwe wu dëgër nga dem liir tiire boobu nga xamante ni moom moo indi coow li bis boo ko liiree di nga xam ne ñii duñ ay jullit barki Seydina Mohamed innamal mu'minina ixwatun jullit jullit ay mbokkam bayit boobu noonu dama bëgg nga def ko sa xel grand Modou man nag duma bokk si ñu lay dépasé mais rafetlu ma ko àndu ànduma si parce que um, sa noonu noon képp ku ko gis teral ko sa noon la teral déggoo ma de sa noonu noon képp ku ko gis teral ko sa noon la teral wasalaam